PCB yëpp yéene ko ci sama wàllu bopp man ak ñi ma ànd ñépp di liggéey donc di bokk ak ñoom gërëb yooyu waaye aussi di nangu aussi euh, li mu ñu gën a ñaax pour ñu gën a góorgóorlu ba li ñuy xaar ci ñun lépp euh, ñu matale kon boog euh, yàlla danañu dajal nañu tey ñu waxtaan ci mbiru màggal gi ginnaaw ba sous-préfet defee CLD préfet def CDD ca Mbacké tey ñu def CRD bi euh, waaye ràññee nañu ne suñu màggalu ren bi am na ñaari màndarga yoo xam ne euh, mën nañ ci teg baaraam benn bi mooy lu jëm ci wàllu inondation ndax màggalu nawet la ci loolu moo tax ñu gën ci yàgg ci waxtaan <coughs> jox ñi nga xam ne ñoo ko amee ñu wax lan la ñu naan li ñu mën a jàpp daal mooy kenn ku ñoom kenn ku nekk ci ñoom dina góorgóorlu ba benn yoon du fatt yoon wu ne oto man caa jaar loolu nag soxal nañu lool ndax dafa bari ay jeexital ci circulation bi ci sécurité bi ci ndox meeg ci lépp <coughs> pardon donc loolu la ñuy ñaan yàlla waa góor góorgóorlu ci ba site de déversoir yi di dox waaye ñëpp ñi nga xam ne tam war nañ joxe ay hydrocureur ñu jàppale ñu ba nga xam ni benn yoon du fat suñu objectif daal mooy benn yoon du fat néewuñu ne benn yoon bu mu am ndox mais benn yoon du fat ndax am ndox loolu nag am wax naa nañ ci bu baax dinañ ci góorgóorlu beneen bi mooy wàllu ndox mi nit ñi war a jëfandikoo ndax xewu diine la yem ak jamonoy nawet jamonoy nawet daw day tàngaay la aussi te xewu diine lislaam dafa soxla ndox xewu diine fa mu laaj ndox fu nit ñi bari dajeendoo fa tam fa mu soxla ndox loolu ñu ngi ci góor góorlu waaye ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo ci taxawee ak entreprise la ñuy liggéeyal ak fournisseurs ya ñu baral seen loxo ñu baral seen loxo ba nga xam ne li ñu am ci forage lépp di dox mooy Fooba Touba am na benn forage li ñu bëgg mooy bala ñu naan camion citerne bala ñu naan bâche yooyu yëpp ay ndimbal yu war a ñëw dooleeku ci mooy li ñu am d'abord li ñu am lépp mu mën ñëw jàll jëriñ mu mën a dox loolu am nañ ci yaakaar te loolu mooy suñu objectif. comme ni ma ko waxee ci yoon yi léegi benn yoon ba ne fatt benn yoon waaye forage yëpp tam di dox bu ko defee su ñu amee loolu te yaakaar na dañ ko am ci tànk yi ñu taxaw plan d'action bi nga xam ne évalué nañ ko fii ci salle bi ak OFOR directeur général maa ngi koy gërëm euh, bu ñu doxalee plan d'action yooyu am 100 citernes ak 80 bâche boo booleeg waa eaux forêt yi ñu war a dolli ci ay ay citerne am naa yaakaar ne xëñ na problème bi bu jeexul tàkk itam dina wàññeeku ku nekk mën a jot ci ci ndox bi loolu am nañ ci yaakaar xanaa ngeen ñaanal ñu ci rek yàlla mottali ko lu jëm ci Senelec am na ci wàll ndaxte boo ne dangay ngay pompe ak ay électropompe électro mooy lu courant di dawal kon Senelec bu wàcceewul euh, desant bi kenn du mën a branché pompe bi moom itam nee fi mu nekk nii euh, bu ñu leen bindoon rek ne leen lii la ñu bëgg rek ñoom daal di ko dogal loolu nag dëgg yàlla maa ngi ciy gërëm seen di leen si gërëm aussi seen directeur général ci vraiment ni ngeen ñu bëgg jàppale bëgg ko jàppale maire ba loolu mën a yomb. Euh, beneen bi mooy ñi nga xam ne ñëpp war nañu indi ay électro ay euh, motopompe ak ay hydrocureur maire bi si la opérateur économique yi si lañu donc ak ONAS tam si lañu ñu daal ko indi ba nga xam ne. dara du mën a fat dara du ñu mën a gàllankoor ñu am yaakaar ne ci ñaari wàll yooyu daal euh, incha allah yàlla mën nañu ci dafa sutura bu fekkee ne liñ fi wax yépp ku ci nekk li nga ne moom nga nar nga def ko taxaw ci góorlu ci te xam ne du yomb ndaxte lu màggal gu tombeek nawet du yomb man ngaa pompe léegi mu tawaat léegi waaye boo amee Pastef comme sëñ Bass Abdou Khoudous bi mu wax am ci Pastef am taxawaay. yaakaar naa ne te xam sa objectif xam li nga bëgg xam si nga jëm yaakaar naa ne li nga bëgg dina mën a li nga dina mën a am ndaxte ñun du ñu teg kenn lu mu mënul suñu borom sax bi ñu sàkk teguñu lu mu mënul kon bokk ñun li nga xam ne ñooy autorité suñuy collaborateur dëgg yàlla duñu leen teg lu ñu mënul kon bokk euh, loolu maa ngi ci ñaan ku ne góorgóorlu ci beneen bi mooy wàllu sécurité il faut ay millions nit daje ci ay fan yu néew ah kooku laaj na sécurité waaye ku dégg nii euh, le colonel Sarr waxe ak commissaire ak euh, ñëpp ñi nga xam ne ñu yor wàllu euh, kaaraange am na yaakaar ne màggal gi dina am sécurité bu doy ba nit ñi mën a ñëw ci jàmm jaamu yàlla ci jàmm dellu ci jàmm loolu nekk na loo xam ne lu ama am am solo la wax nañ ci wàllu yoon wàllu yoon tam boo ko tuddee di nga tudd xëj na plan de circulation waaye di nga tudd AGEROUTE parce que yoon wu war a baax ñoo ko xam yéen nga war a defar ñoo ko xam yoon woo xam ne dañ ko war a jagal balay màggal gi tam lu am solo la parce que bu ñu mënul am sax yoon yi ñu gënal yoon yi nga xam ne yëpp tane na ñu jagal ko ba nga xam ne bu bu circulation bi naree xat dina am ñoo xam ne dinañ mën a sàkk pexe mën caa jaar loolu tam maa ngi koy ñaan Ageroute yoon yi ñu war a profi reprofiler maanaam laalaat ko ba nga xam ne circulation bi day tane en attendant peut-être fekk déwén ñu mën kaa gouverner loolu tam bu ñu bu ñu ko xeeb ndaxte euh, foo xam ne nit ñi dañu war di dem di ñëw euh, kenn du xeeb yoon lu mu gàtt gàtt ak nu mu mën a mel buñ ko buñ ko xeeb dina mën a am lu mu apporter loo xam ne xëñ na bu fa nekkul woon mu gën a metti loolu ñaan nañ ko dëgg yàlla ñu taxawal ñu ci jàppal ñu ci bu baax euh, maire aussi fu dëgg yàlla question yi nga xam ne yu bëri yoo xam ne laal la maire bi joxe na ci ay ay ay ay ay jël na ci ay dogal ne dina ci taxaw moo xam affaire service d'hygiène gis ngeen ko euh, dina ko jàppale euh, ci euh, boo gisee ci wàllu kaaraange dina jàppale police pour déjà fan lañu war a jox GMI yi daal di fa yóbbu courant n'est-ce pas loolu yëpp nekk na loo xam ne ay ndimbal la yoo xam ne ak suñuy service fa dëgg yàlla dina leen dimbali ba seen liggéey mën a ñoŋ parce que manifestation la boo xam ne événement la bu nga xam ne euh, ñoom service yi dañuy laaj ku ñëw jàppale leen bu baax a baax a baax a baax am naa yaakaare daal su loolu taxawee transporteurs yi góorgóorlu xool ni ñuy dawee xam ne ci xew diine la ñu jëm te kenn warta lor kenn du ma ne sax ñoom ñooy loraa ñooy ñooy ñooy loraate déedéet ndax bëgguñu ko ay boroom kër lañu dem ay ay njaboot lañ waaye ku nekk gën a góorgóorlu xool ni ngay doxee. Euh, Euh, eaux et forêts moom dama koy gërëm parce que déjà autorisation yi ñëw na ba pare waaw loolu mu def daal ni mu defee man neex na ma lool maa ngi gërëm ministre de l'environnement n'est-ce pas euh, déjà euh, autorisation yi agsi na mu ngi sama bureau lu mat ay ñeenti fan a ngi nii ñëw na ba pare pour mattameeg yooyu ñoom pare nañu kon xam nga kon di waajal màggal gi ñoom ñoom mën naa ñoo yéen a jëkk a pare kon bokk mon commandant maa ngi lay gërëm di gërëm say say say say say say patron ne leen daal ñun comité d'organisation bi man mii sama wàllu bopp kontaan naa bu baax a baax te yaakaar naa lu ñu man rek anticiper loo man rek léegi rek def ko léegi rek ndaxte problème yi war taxaar loolu maa ngi leen ci gërëm bu baax a baax di am yaakaar ne aussi euh, waa santé euh, seen i jumtukaay dina dina yokk bu baax a baax ba ñu mën a taxawee loolu ndax euh, nit ñi lu ne dañ koy ñëwaale ñu am yaakaar ne ku fa ñëw incha allah doo fa indaale luy lool kenn euh, doo génnewaale aussi jàngoro ci ci màggal gi ba di ko mën a yóbbu fen ngeen xam ne kon daje yooyu ñuy daje daje am solo la daje yoo xam ne dafay dajale ndoo ay millions de personnes lu am solo la kooku sante mënta ñàkk ko parce que nit ki day ñëw nit ki day ñibbiwaat fa muy dellu te si si day euh, dellu ci réew mi walla ci bitim réew donc ku nekk xanaa kay boo fa jëlewulee wér waroo fa jële leneen te loolu euh, naa am ñu ngi ñaan sëñ ji mu ñaanal ñu parce que am na yàlla yaakaar ne sax ku fa indi jàngoro bokk ñaane yàlla mën na ko faj waaye si suñu xam-xam bu gàtt ñu fexe ba nga xam ne kenn du fa jële dara loo xam ne mën nga ko dem euh, feebar wala dara luy lore yóbbaale ko euh, fen loolu nag day fekke ñu def prévention service d'hygiène fa mu war a pomper mu pomper ko waa santé taxaw ba lépp loo xam ne war naa mën a lor doomu aadama wala jàngoro bu nu mën la dimbalee ba mu faju mu faju ba euh, li nga xam ne ñëpp dañ mën a ñëw màggal ci jàmm delluwaat ci ci ci jàmm loolu daal nekk na ay points yoo xam ne euh, ci ci gàttal ginnaaw ba ma gërëmee commerce euh, gërëm élevage ci seen taxawaay bi ñu fas yéene taxaw nekkoon na ay poñ yoo xam ne daal wax nañu ko fii ci màggalu ren gi di wax ne noonu la ñu bëgg a taxawee ren. incha allah euh, ci wàllu kaaraange wàllu commerce ak wàllu santé ak wàllu sécurité ndox meek euh, yoon yi te am naa yaakaar ne bu loolu lépp taxawee suñu borom dee ñu dimbali ba ñu am màggal gu mucc ay si euh, day day yonte la Muhammad sallallahu alayhi wasallam si barke Sëñ Tuuba mu ñaanal ñu ci ba ñu am ci ndam lu kawe kawe kawe bu wees suñu jot loolu daal laa ne woon dinaa ko ci jottali Touba ci kanam tam di leen gërëm di leen sant fu dëgg yàlla ndax euh, bi ñu fi defee réunion d'évaluation fii euh, gisoon nañ ne am na ñetti forage yu paan te man sama objectif fesal naa ko bëgguma ñu dem màggal ak forage yu paan ñu am ñetti forage yu paan directeur OFOR si jotaay bi fexe na ba lijjanti ñu benn forage sa suba ga la ñu monté astafurlah benn pompe ba pompe ba ñu monte ko kon boog moom mii directeur général OFOR Euh, monsieur Ndaw maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax ci taxawaayam xam nga tey bàyyi na lépp te dafa jóge voyage ñëw fexe ba bokk ci CRD bi tey euh, loolu engagement am man mën naa ci wax lu bare bare bare kon bokk ci jotaay bi la fexe ba ñu am benn pompe waa euh, Touba ca kanam tam utal ñu beneen pompe bu nga xam ne tey mooy daawal forage Bagdad te dama leen ne woon sama objectif mooy avant màggalu sëñ Abbas sëñ Abdou Khadre benn forage yu Bagdad baax parce que biñ ma fésalee fii forage boobu li muy tekki ci màggal gi laa nekkoon ñun nañ fexe ba forage yu euh, sëñ Abdou Khadre euh, fële ki euh, baax avant màggalu sëñ Abdou Khadre loolu réalisé nañ ko loolu réaliser nañ ko si ndimbalul tubaa ca kanam kon boog tey population yi ñu ngi ci ñu ngi ciy jariñu forage ba ne université ñoom itam dem nañ ba commandé nañ pompe bi bu pompe bi xëj na deux semaine la ñu waxoon ne dina ñëw te bañ fa demee léegi mat na une semaine kon moom mën naa wax ne dans une semaine pompe boobu dina ñëw ba ñu def ko ci université kon boog vraiment Touba sa kanam maa ngi leen di gërëm te loolu na àddina di doxee loolu mooy partenariat public privé PPP loolu àddina dafa soppeeku léegi euh, communauté bi sax day ñëw di dugal loxoom ci ni état di doxee di ci participer population yi privé yi doon noonu moo tax état dafay ànd ak communauté bi waaye ànd ak aussi privé yi sax di liggéey loolu jamono moo moo toll foofu gis ngeen am na ay baat yu bees ñu naan responsabilité sociétale d' entreprise entreprise yi léegi dafa am yoo xam ne ay ndimbal yoo xam ne dañ koy lañ koy joxe loolu daa bokk ci liggéey bi léegi yu bees la yu xarale loo xam ne euh, dafa law ci àddina ONG yi association yi ñoo ñëpp dañuy bokk ci ñi nga xam ne dañuy bokk ci ni ñu réew mi di doxee parce que dañuy wax ne état mënul lépp état mënul lépp état sax warul def le booy xool waaw nit ñi dañu war a dafay wane ne yow ci ci ci ci réew mi nga bokk boo ci sóob sa loxo même boo wolof sax dina wax ne kenn du man lépp def lépp sax voilà nit ki loolu participation lu wane ne moom mu ngi fi buñ ko ragalee am mu mën a ragal biiram nag loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne dafa lay gën a boole ci réew mi waaw loolu vraiment ñu ngi koy gërëmee waa Touba sa kanam ginnaaw ba ma remercier maire aussi pour appui bi muy def euh, yëpp jëmale ko ci màggal gi Euh, jëmale ki ci comité d'organisation di gërëm sëñ Ousmane bu baax dëgg yàlla réunion yi fi def ak yëpp ñoo ànd visite bi may def yëpp moo ànd ak ñun wër forage wër point yi nga xam ne dafay taa yëpp ba mu ba mu jeex mu ñaanal ñu ñu mën a delluwaat suñu su ku ci nekk euh, sa sa sa bureau loolu aussi maa ngi koy gërëm sëñ bi bu baax liggéeyam suñu ànd vraiment ànd bu rafet la mi nga xam ne vraiment ñu ngi koy rafetlu di ñaan yàlla dëgëral ko yàlla jàppale ñu ba li nga xam ne bëgg nañ ko yàlla may nañu ko ñu am màggal bu am taar bu bu rafet ba nga xam ne euh, du mel ni benn màggal loolu dañ ñaan yàlla dañ ko ñaan sëñ Tuubaa dañ ci liggéey itam dañ ci góorgóorlu ba nga xam ne niñ ko anticiper tàmbali liggéey bi balay CRD bi suñ ci paree itam euh, comité de bi noonu lay continuer di ci liggéey guddeeg bëccëg ba màggal gi ñëw am na yaakaar ne daal buñ ci liggéeyee noonu. yàlla mën na ñoo defar sutura loolu daal foofu laay daaneele sama kàddu